Euh, ci kàddu gi ñu daal di dem Ziguinchor foofee nag ki ab sàcc bi nga xam ne daan na teg loxo euh, ville bu Ziguinchor yëpp ndax jamono couvre-feu bi moo daan faral di daal di rek daaj yi di def euh, naka sa dul noonu jamono ji nag teg nañu ko loxo ba mu nga ca commissariat centrale bu Ziguinchor bu ñu sukkandikoo ci commissaire centrale ba moom mi ci indi ay leeral moom Adrame Sarr ñu déglu ko benn Michel Kanfoudi. guddi au avril si lañ jëkk constaté benn cas cambriolage bu amoon fan yi fan fan yi suivre amoon yeneen cas yoo xam ne nañ ba mu amee gis nañ ne population bi amoon na benn psychose bu am mais sans donc mobiliser naa tout le service régional de sécurité publique et si temps bu bu gàtt fexe nañ ba ba ko fexe nañ ba suivre ko fexe ba arrêté ko non pour le moment am na yenn détail enquête mënu ma ko wax mais soo leen bàyyee yëpp bu ci nekk mu ne fu mu jaare ak yéen gis ngeen ngeen fu ñu dem mooy wan fu mu duggee fu mu génnee ak acte yi mu def yëpp moom ñu koy retracé pour wane ne lii kenn inventé wu ko moom mooy ñëw ñoo ànd moom si teey amul contrat amul dara ñu ànd ak moom ñu retracé pour chaque lieu bu mu visité ñu retracé ñu retracé euh, les les péripéties de donc du forfait non population Ziguinchor moom ñoom xam na na fii am na sécurité parce que euh, damay jël si benn délai diir bu gàtt rek bi état d'urgence bi commencé ba léegi gisuñu benn benn benn benn benn nit presque à pour cent ñu population Ziguinchor posé wuñu benn problème lépp lu nga xam ne état bi wax na ko président de la République def na ko ñoom ànd nañ ceeg moom xam nga ab dëkk nag ñëpp mënuñoo mënuñoo jub dina am ñoo xam ne dinañ tegu si yoon am ñoo xam ne duñ mës tegu si yoon mais wante nag ku tegu si yoon dina la teg si yoon waaw tey y'a central y'a le poste police de Yamaten y'a la division de la police technique et scientifique et y'a le groupement mobile d'intervention euh, cinq à six jours di ko topp diko ko topp di ko topp ba xëy suba fan ka fekk fu mu tëdd ñu ñëw jàpp ko indi ko Euh, ñu daal di nag euh, dikk ci ñi nga xam ne nag ñoom la ñuy di nag euh, di jëfandikoo ndimbal bi ko ci wàllu force Covid 19 boobu ca Kaolack ay plainte daal na ci rek jib ñu déposé ko jëmee ko ci ñent ci ay délégué quartier ñoom ñi ñu jàpp ne daal nañu tànnee ñi ñu daal di jox yëf yi ci mbirum ma neex la ña ko yeyool dëgg daanaka amuñu ca Kaolack Mamadou Camara. ñi ñu war a tànn ci wàllu mbas mi nga xam ne dañ leen a jox dund di aide alimentaire force Covid ci Kaolack. daanaka pëccëxu tàmbali na waaye ci biir quartier yi ñeenti délégué de ñoom ñenn ci askan wi yóbbu nañ leen ci yoon nee nañ nag ni ñu tànnee ñenn ñi dafa am par parlo te teguwul ci yoon Muntaga Gay di délégué de quartier Saara Njugaari Kaolack nee na ñi leen plainte waxuñu dëgg moom Muntaga Gaye di délégué quartier Saara Njugaari di ci indi ay leeral ginnaaw ba nga xamee ne demoon na wuyu juy enquêteur ya ci commissariat central bu Kaolack. maa ngi tudd Muntaga Gaye man mii maay délégué de quartier de Saara Njugaari depuis man maa ngi sama 15e année dañ maa porté plainte bi ñu woo ma police dañ ne mais argent moo ma woo mu ma yaay ma la soxla ma ne ko baa jàmm ma ne ko maa ngi ñëw léegi aussi too ma dem mu ne dafa ko am ah, mën na ko man Sidibé mon quartier pourquoi il se mêle dans mon quartier alors que boog il habite à Bossane kon lii bu ñu fi jógee beneen mbir doon bi ma posé ay questions nag j'ai répondu posé nañu ma ay questions tontu naa parce que bi ñu ko defee ma dalaa ko après ma signé ba dara léegi boobu léegi maa ngi toog di xaar parce que man ko xamul gaagaay ca Sadio Ndiagaare man ko xam nga Sadio du fët boppam dama man may naan carte blanche dal sax waaye xiiroo ŋaayo tàmbali na fii nga xam ne moom mooy commune Kaolack Kaolack Mamadou Camara Sud FM Mamadou Camara loolu la war a sax collectif bi ëmb délégué quartier yooyu euh, di daal di nag ñaawlu li ñu convoqué ñeenti délégué yooyu le ci wàllu ciblage bi ñu ñuy jox wàllu aide alimentaire bi Mamadou Adama Ba nekk délégué quartier Parcelles Assainies bu Kaolack moo jiite collectifu euh, délégué yi ñu déglu ko ba tey ak Mamadou Camara. mu am ay samay mbokk délégué de quartier ñi ne dañ leen convoqué pour man leen lu tax ñi ne ah ñun daal ci quartier yi diw ak diw comme choisir ñu leen ñoom ñoo def ay plainte ñu pour dañoo toog rek ñu dem man nag mais trop c'est trop parce que ñun kenn mayuñu lu ñu lekk kenn defalu ñu dara ñun ñooy woote ñooy def lépp du ñun ñooy tànn siteel naa leen ñi war a tànn mais quartier bu nekk mënul am lu ko doy ku nekk nag dangay ngay doylu amul dara lu ñuy mën a tuumaan lu dul man ay ay caaxaan bu la nit yóbboo police naan man ciblé wuñ ma mënuñ ciblé ñëpp ñuy ciblé ak ñu ñu dul ciblé loolu nag dangay ngay muñ rek beneen yoon bu amee ñu sible la naa la wax benn affaire du délégué bi mooy ciblé comité bi yëpp mooy dem ciblé bu ñu ciblé ñu ñëw en comité ñu waxtaan en démocratie bu fekkee ne am na ku ñu bind ku ko yeeyoo ñu ne noon non kii bu leen ko bind yeeyoo euh, car Kaolack nag 45 délégués de quartier la mais dafa am 5 yoo xam ne amagul délégué ci 40 yi lañ ci convoqué gu muy Saara ñu gaar yi kii jàlloon na de Kabato ki kooku beneen affaire la woon Touba Ndorong ak Touba Ndorong extension pour le moment ñii la ñu convoqué xamuñu nag affaire bi fu mu jëm ñun nag bu fekkee ne ça continue il faut ñu répliquer on ne peut pas continuer ñu ñuy toroxal à chaque fois te ñun newuñu dara ci mbir mi maîtriser wu ma très bien procédure mais dama normalement comme ñëw na ci préfet préfet da ko waroon jox la comité communal ci sama xalaatu bopp nag le comité communal convoqué les délégués ñu jéem a seet naka la ñuy régler affaire boobu mais bu demee directement euh, police day mel ni affaire bi c'est une faute lourde ci ay rumeur dégg naa ñu naan am na ay délégué ñuy wax boo ma joxee 500 naa la bind mais loolu man de nee naa leen loolu ay fen la loolu amul Euh, ñu daal di nag euh, dëkk ci ñaareelu adjoint maire bu commune bu Djilor ak Dionik euh, ca département bu Foundiougne ñoom nag yéex yéex bi aju ci wàllu nag coow loolu mooy état alimentaire bi moom la ñuy daal di nag wax ñu jàpp daal ménager ko soxla jamono ji ba léegi kenn séddalewu leen dara si di Diop di ci àddu ñu déglu ko ak Ngor Sarr. ci ci commune bi nga xam moom laa nekk moom laa gën a muy commune bu Djilor ceeb bi am na camion yu ñëw indi ceeb bi. mais ceeb bi ñu ko stocké foofu village yi sonn nañu population bi sonn nañu parce que vraiment gisatuñu li nga xamante ne moom la leen président war a jox muy aide alimentaire te suñu demaatee si si ay jours distribué wuñ affaire bi y problème parce que ni ñi xiif nañ sonn ne nawet bi passé bi nawet bi doxul léegi nag li mënoon jàppale gars yi mooy ñu teel ko indi parce que si weeri koor lañ nekk ngoor dañu xam te weeri koor lañ ko gën a soxla mais jusqu'à présent mu ngi foofu discours bi joxe bu ko may lancer un cri de cœur au président de la république di ko remercier encore si mu taxawoo Covid 19 bi. nañ gaaw joxe kii bi joxe intrant mu am leneen loo xamante ne encore maa ngi koy wax di lancer un cri de cœur parce que ñun comme ni ñu doon nekk fii am na yenn yoo xamante ne suñ ko gisee dañ ko war a wax. daal di nag euh, dem Ziguinchor boobu jamono nag ñooñu di ñaxtu seen aide alimentaire Ziguinchor moom ministre bi ñu dénk wàllu euh, développement communautaire dal na fay rek euh, dem ba tàmbale na sax li nga xam ne mooy ak joxe départ bi ngir ñu séddale lii di aide boobu foofa ca dëkk ba ñuy wax Boutoupa Camara Kounda ne ñu nag séddalek yëf yi daal daal nay démarré ci région bu Ziguinchor lu war a toll ci ñaar fukk ak ñett ci ay junniy ménage ne ñu dinañ leen ko daal di Mansour fay ministre bi ñu teewlu ko ak benn Michel Kanfoudi. depuis maladie bi ba mu ñëwee ca njëlbeen dafa jóg jël ay décisions yu am solo ay décisions de restriction gis ngeen ko bu baax a baax jël ay mesures créer lu ñuy wax force Covid 19 doté que 1000 milliards de francs CFA. programme boobu la mu génn waat ci tànqaat ci beneen bànqaas boo xam ni moom la aide alimentaire bi di génn pour 69 milliards de francs CFA. aide alimentaire bi yokk nañ ko <clears throat> mooy ndimbal bii pour un million de ménage maanaam huit millions de sénégalais ku ci nekk ménage bu ci nekk dana am ñaari saaku ceeb am fukki kilo suukar fukki kilo pat fukki litre dawlin ak paquet savon boo xam ne da def fukki morceau savon ak juróom-ñett mu nekk lu rëy donc ku mel noonu askaram daf ko gën di jàppale gën ko taxaw bu baax a baax ci lu muy liggéey parce que yërmande moo tax maande ak lu ko war ci askan bi loolu lay président de la république def président Macky Sall di ko def donc da ko ciy jàppale bu baax a baax ñu daal di dikk nag ci li aju ci discours njiitu réew mi ak nag réaction yu wuute yi ñu ci bëri daal di koy nag ŋàññ ci doxalinam googe cellule communication bu benn Bokk Yaakaar ñoom it daal nañuy jàppal tànk njiitu réew mi Macky Sall ñoom ñi daal di nag euh, gis ne ña ko daal di nag critiqué euh, teewikuñu ko ci ay cislaay ndax réew mi moo daal di toll fi nga xam ne njiitu réew mi daal di nay jël dogal yi ni mel Pape Mahawa Diouf di daal di nag indi ay tontu euh, ci li waral njiitu réew mi daal di ni doxalee ñu déglu ko ci micro biram Ndiaye. mbir mi du pour ñu wàll kenn du pour garab doomu jàngoro ji law pour nit ñi mën a julli la waxtaan ci aussi ak ministre de l'intérieur pour ñu xool ci ban anam lañ ko mën a defee ñu tijji jàkka yi nit ñi mën a julli te te du doon yoon boo xam ne fële nit ñi di jaarale jàngoro ji ndax kat li ma doon wax sànq rek ci tubaab nit ñi dañu commencé jiiñ président ne ko dafa dafa daw ndax njiitu këru diine yi dañ ko teg pression ñu leen waaye yéen ñun kat xeexuñu woon këru diine yi xeex bi liggéey ak président mënul am ndam ak ñàkk ñàkk am ndam njax ña bokk li ñuy def mooy aar réew mi bu ko defee nañ rafetal njot yi rafetal wax te ñaan sunu mag ñu baax ñooñu ñu continuer di ñaanal réew mi yàlla tegg fi li nga xam ne moo fi ne confinement total ne nañ tëj nit ñi foofu tamit ñi gis ne président Macky Sall am na ceeg dal tëbul tëb dem tëj nit ñi ci ku nekk ci kër yi xool na li nga xam ne moom méngook suñu société méngoog suñu réew muy couvre-feu mu def ñu dugg ci weeru koor mu indi yeneen dimension nit ñi di ko yëg fekk yi tamit am na spécialiste yoo xam ne sax ci àddina bi nee nañ fi toll nii ku ci demee ni Eric Raoult moomee dégg nañ ko mu ne feebar moom dellu ginnaaw rek la mën def fi mu toll nii ndax fa mu fépp ci àddina bi mu ngi fay dellu ginnaaw kon mu mel ni kon feebar bi dinañ réew àddina yëpp jàpp nañ ne faw ñu continuer di dund ak moom di xool nañuy dundee ak président lii mu jël ci initiative ci déclaration boobu mu def dëmb day junj ne tàmbale na di jàngat naka la ñuy nar dëkkee ak li nga xam ne mooy doomu jàngoro bi ci réew mi ndax kat réew yëpp tàmbale nañ loolu mënuñ donc lu dul rafetlu ko di rafetlu ñi nga xam ne ñoo nekk ci kujje politique bi ànd ak mat ànd ak tey ànd ak dal ànd ak président ji ko jox sax ay suggestion di ñaaw lii tamit ñi nga xam ne yàkkamti nañ gis lu ñaaw fu ne ba li nga xam ne lii di doon mbas mi doon li xam ne Sénégal yëpp la métti mën a dal ci ñëpp lu ne rek ñu génn ci jéem ci xool safaan wa wala xool ci la ci ñaaw loolu ñu ngi koy ñaawlu bu baax baax a baax a baax am réew nag objectif bi dafa bëri l' bi ñett la ndax objectif bi covid 19 bi la ñu xeex ko moo njëkk waaye objectif bi tamit comme comme Sénégal kenn mun mënu ko bàyyi mun na a xay ndax nit ku am xëy war a xëy doom dara sa poos loolu foofu ñu sàmm ko wax ci doole itam eh, am na tissu social et social boo xam ne il ñu préserver ko c' est important loolu yëpp mooy def am réew wér-gu-yaram nag dafa essentiel c' est fondamental ndax sans wér yaram leneen lépp doo Euh, ba tey ci réaction yooyu mu daal di naka wax askan wi daal di siy joxe seen gis-gis ci doxalinu njiitu réew mi boobu rawatina euh, li aju ci wàllu mbasu Covid bi ñenn ñi jàpp ne ubbi teg marché yi daal mooy nekk li nga xam ne ëpp na ndax nag dafay bari nit ña fay daal di dajaloo ñeneen ñi gis ne ay mesures la yoo xam ne mën nañ koo rafetlu waaye nag matuwaay ñu dal di koy jël ay satu géey ba. ay mesures yu bari la li nga xamante ne kii di Macky ki ci message tolluwaay mbas mi ak nan la ñuy def ba mën a xeex mbas waaye mu am yenn dogal yi nga xamante ne moom la ñu ñi gën a jàpp ci seen xel li ci mel ni ubbi jàkk yeeg église yi tàmbaliwaat njàng mi ci ndaw ñi nga xamante ne ñoo nekk ci classe d'examen ak li ñu naan ubbi marché yi juróom-benn fan ci semaine bi le citoyen sénégalais bu nekk nag di ci am kàddu gi mu yëkkati rek jëm ci wàllum décision yooyu ñi nag nettoyer mbedd yi am na kàddu buñ ju sànni. man daal wàññul dara couvre-feu bi heure bu mu ko joxee noonu ak heure bu mu nekk bu bu mu joxe ni léegi nii presque benn la man jàkka bi ba léegi je eh, d'accord ma noonu ñu bu ko noonu parce que sinon nit ñi bu ñu bëree si biir lu ñu daw noonu pale loolu moo ñëwaat nga xoolal du pour eh, boo demee fu ñu jëndee ay mbuuru affaire yooyu aral nga fekk te la ñu bañ. Eh, kii nag di ab eh, ndaw eh, di rafetlu rek décision bi nga xamante ne moom la Macky Sall jël jëm ci wàllum rek yokk lii di couvre-feu bi. man mu def nii kontaan a dox seen. doo mën a jënd dara. ñeneen ñi nga xamante ne am na rek kàddu gu ñu sànni jëm décision yooyu li nga xam ne nguuru Sénégal moo ko jël muy mag ñi kii nag di ñu xamal rek ne citoyen bu nekk dafa war a dugal loxoom ci xeex bi. yàgg guñu si pic affaire bi mu ngi gën a yokk chaque te nit yi dañu dëgër bopp donc sensibilisation nit yi loolu mooy li jëkk am solo parce que nit population Sénégal bu ñu demee ba discipliné rek li ci des amul solo. ay ndogal la nag yoo xam ne kii di président de la république Macky Sall moo ko rek jël démb waaye boobe ba léegi wax ju bëri nag jóge ci ay dogal yoo xam ne mi ngi rek ci table kii ministère de l'intérieur ak ministère des transports. transport terrestre ngir rek mën a saytu yooyu lay dogal te ànd ci ay leeral. Aïssatou Gueye Ba ñu daal di dikk nag ba tey ci chapitre réaction yooyu lay li dem ci wàllu njàng meek njàngale meek syndicat autonome wàllu développement ak formation ñoom ñi ragal nag la daloon Japon mu daal di wàllu siyaan ci fii ci Sénégal ci ubbi teg euh, classe yi rawatina ñuy def examen ñu jàpp ne demoon nañ ci biir yëf yi daal di dellu siwaat ba àtt nañu ko ñu daal di nag tëjaat classe ya euh, bi yoon confinement ba gënoon métti mbay saar jàngat boobu la ci def mooy secrétaire général bu SADEF ak Birama Ndiaye gannaaw bu ñu dégloo discours bi nga xamante ne bi moom la président de la république def te askan wi yëpp doon ko xaar rawatina ñun jàngalekat yi di xaar yan mesure lay jël par rapport ak ñun par rapport ak école bi par rapport ak jàngale élèves ñu jàpp ne dañ ci am mbetteel bu mag a mag a mag a mag ginnaaw bu ñu gisee président de la république deful lenn lu dul wax ñu ne prenez vos responsabilités et apprenez à vivre avec le virus ñu jàpp ne tey jii bu ñu jëlee dogal ubbi école yi wax jàngalekat yi ñu dem mooy jàngalekat yi ak élèves yi dem leen ngeen jàmmarloo ak coronavirus te loolu day indi musiba bu garaaw ci askan wi parce que élèves yi ak jàngalekat yi bis bu ñu duggee ci école bi jàmmarloo ak virus bi bu ñu ko jëlee danañ ko infecté ba pare bu ñu demee kenn ku ci nekk sañ njaboot da nga ko fa dugal te soo ko defee kon day gën a law ci askan wi mu gën a te ma jàpp ne président de la république moom ci boppam dafa jëloon ay mesures yu am parce que bu leen affecté rek day affecté askan wi donc mu nekkoon mesure bu maana bu am doole bu askan wi yëpp salué depuis ba léegi laa la waxal ni ñu bari dañu tiit jàngalekat yi tiit nañ parents d'élèves yi tiit nañ élèves yi tiit nañ ba tax na yaakaar naa ne tey jii seen psychologie bi affecté na wu de telle sorte que actuellement lu defal jàngalekat yi ak élèves yi la ñu war a def moo tax ñun ñu jàpp ne mesure boobu dafa kéemaan dafa day waar parce que wax ne prenez vos responsabilités allez vivre avec le virus yaakaar naa ne loolu dafa garaaw parce que virus bi bu la songee daf lay faagaagal parce que déjà loolu tiital nañu bari ba moo tax ñun ñuy jàpp ne pourquoi président de la république démissionné ci stratégie bi nga xam ne moom lay doon utiliser boobu ba léegi ginnaaw bu mu tëjee école yi te dafa bañoon virus bi dugg ci école yi propagé pour affecter élèves yi ak enseignants moo tax may wax ne est-ce que ñun awuñ tànk bi nga xam ne moom la Japon nekkoon ndax bu yàggul rek dañoo gis Japon ubbi ay école am ne ko ubbee doxal tuuti rek dañoo gis ne virus bi dafa dugg commencé fa gannaaw tëjaat école loolu moo tax ñun ñi ngi wax président de la république ñu ngi koy wax ne instant bi ñu nekk nii ndax xalaat bu baax ci dogal bi muy jël te également mu xool danger bi nga xam ne moom mooy guetter les élèves et les enseignants par rapport au virus ndaxte nag ñu wax ko te dee bëgg coûte que coûte nga sauver année scolaire warul tax nga sacrifier ay dundi doomu aadama reprise boobu ñu fas ne def ci wàllu cours ñaari fan weeru nag juin indi na nag ñàkk déggoo ci biir nag jàngalekat yi kon ñi nekk ci biir réew mi la ñu daal di nag ragal mooy kaay daal di nag yokku lu aju ci wàllu nag wàllante gi am na barab yoo xam ne sax ngir ñu daal di sàmmanteeg geste barrière yi lu jafe la beneen bi mooy nawet bi nga xam ne mu ngi jub si aji faatu bari ñu war a tàmbaliwaat njàng mi le 2 juin bi ñu jëm ngir classe yi nga xam ne dañuy def examen njiitu réew mi daal di jibal boobu lay dogal démb waaye ca saase ñi nga xam ne ñooy jàngale nekkul ne ñëpp ñoo ci ànd. si sama xalaat. góor Ah, suma sañoon day di jàngale ca Vélingara ca commune bu ñuy woowee Kandia village bu Saare Yoroneta moom nag àndul ci boobu la dogal ndaxte dafa jàpp ne lépp lu ñuy wax ne nit ñi nañ ko def ngir mën a dugg ci classe yi duñ ko mën a matal foofee mu ne. comme noonu ko xamee. ay classe ñaari classe dañuy yor si suñu classe yi day am nombre d'élèves yu ba te ñu naan tamit élève bu nekk war na def un mètre jël un mètre maanaam sociale bi ba pare jox élèves ay masque jox leen gel dina metti tuuti parce que comme noonu la ko xamee suñu école xalaatam ute ak bosu Abdoul Aziz Bassoum nekk directeur école ca IEF bu Mbour de moom mu jàpp ne école am boobu jafe-jafe naru ko fa gis. yàlla def euh, beneen jafe-jafe boo xam ne fala budda mu daal di am moo di nawet bi nga xamte ne mi ngi yegg si ak yàqu-yàqu yi mu nar a àndal rawatina fii ci zone sud fa nga xam ne. monsieur Biancaire fa la nekk di jàngale ñetti at ci ren. ñun suñu zone bi fii nii nawet bi comme na nga xamee bu commencé moom yàqu-yàqu yi dina bëri abri provisoire yi yàqu yoonu école yi tamit dina xaw a metti tuuti. waaye nag muy jàngalekat bi wala directeuru école bi am na foo xam te ne ñoo fa bokk xalaat moo di ne année scolaire bi mën nañ koo sauver waaye du tee faaw ñu indi ay soppite ci njàng mi ni mu nar a demee. à condition xanaa bu ñu poussé itam examen yi mu weeru septembre wala octobre kay élèves yi mën a mën a préparé waat. yeneen enseignants yi dinañ su dañuy euh, ko en groupe ci quoi. tollu nañ ci téeméeri junni ak juróom fukk ak benn ci ay xale yoo xam ne ñoom la 2 juin bi ñu jëm dinañ daal di delluwaat ci classe yi ngir woyal seeni njàng li des nag ci ñetti million ak juróomi téeméeri junni xale yi nga xam ne ñoom la ñuy jàngal ci suñu réew mi ñoom dinañu dinañ woyali di amal seeni cours te di ko jaaralee ci xarala yu yees yi wala sax tele yi mbala sax rajo yi. Euh, loolu la ñu yóbbu Saint-Louis ñoom nag ñu ciy bari wàllu examen yi ñu ne dinañ ko daal di amal ci fin d'année yi yi ko war rek euh, def daanaka dégg nañu bu baax a baax app euh, boobu ñuy joxe ñaari fan ci weeru juin tax ñu ci bëri ci biir kër yi tàmbali nag seeni nag exercice ak révision ngir mën caa dem bu baax Yves Tendey dogal bi nguur gi jël ngir dooraat njàng mi ci classe examen yi ci ñaari fan ci weeru juin bi ñuy dëgmal daanaka wàññiwul dara ci farlu bi ñu nemmeeku ci yenn ci élèves yi nga xam ni ñu ngi jàngee ca école El Hadji Sidi Ndiaye ak Notre-Dame de Lourdes ñoom ñi nga xame ni booba tey ñoo ngi réviser seeni leçon ñu ngi réviser mathématique français ak leçon coronavirus bi moo tax jàng jànguñu école dama bëgg ñu respecté ñu respecté li ñuy wax ci télé yi. li mel itam la ñu nemmeeku ci seen i moroomi élèves yi léegi nga xam ne ni ñoo ngi jàngee ca école Amadou Fara Mbodj. bu ñu waaj a composé la corona bi la école jàngutul il faut porter les masques. corona bi moo tax ñu gën a jàng am naa yaakaar li ci def ci at bi daañu jàng. tey jii bi la élève nga xam ne ni moo ngi ca classe terminal ci lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall moom am na yaakaar ne examen wu fin d'année yi daanaka dina am ren jilee ba nu gëjee jàng yàgg na lépp ndax coronavirus ba mu commencé ba tey corona bi moo tax bu duwal woon loolu daanu dellu école ñu ngi réviser sunu ay leçon wak yépp waaye muy xamle ne namm na tey jii ay moromam yi élève rawatina xumbutee bi nga xam ne ni moo daan am ci biir seeni classe bien vrai que ñu ñuy jàngee du yem comme ñu ñuy jàngee école foofu ngay gis sa morom yépp ñu toog di jàng mu lay gën a jox envie ngay kii jàng ñoom nag ñu wutee lool ak ñeneen ci seeni moroomi élève ñu bëri ñi nga xam ne ni jamono ji toogaay bu yàgg bile ndax mbas mi tax na ba ñu tàmm foo bi te fàtte réviser seeni leçon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 Sud FM. Yves Tendeng daal di koy jaajëfal ñu daal di desandi ak euh, xale yi ci contexte crise sanitaire bi ak cours yi nga xam ne daal nañ koy rek euh, ajandi donte sax euh, nee ñu classe d'examen ñaari fan ñu daal di dellu siwaat ak confinement xale yi mbir mi nag mu bari lool ay lënc lënc yu ñu war rek defar rawatina ci côté way jur yi nga xam ne jamono ji ku ci ne daal yaa ngi jéem a wut sax ay nit yuy jàngal élèves yi ci biir kër yi bu ko defee rek ñu mën jël matuwaay yi. waajal itam examen yooyu la dinañ ci dikkaat ak gëstu Fatoumata Diallo Euh, ba tey njàng meek njàngale mi bi yoon étudiants yi ñaa fare ca université Gaston Berger mu nga ca Ndar li ñuy sàkku mooy seen i bourse euh, coordination euh, bi di ñaawlu doxalin bi nga xam ne Ecobank def na ko ne nee nañu liñ ko waxoon mu daal di koy jëfee mooy rek te njiit mi joxe woon ko ci ay directives mooy ñu jël matuwaay yi balaata juróomi fan ci weer bi ñu daal di jot seeni nag payoor li ni mel nag amul tax étudiants yi di am naqar di ñaawlu itam boobu doxalin coordonnateur ba di ci àddu moom Ahmed euh, Diaw ñu déglu ko ak euh, Ndeye Marème Ndiaye. rappelé ne président de la république moo jëloon ay engagement ne étudiants yi Sénégal yëpp dinañ leen fay seen bourse au plus tard le cinq de chaque mois tey ñu ngi si le onze ba léegi étudiants yu bëri ñu ngi nekk université Gaston Berger de Saint-Louis war jox seen bourse Ecobank ne du leen ko fay def nañ le tout pour jot Ecobank mais suñu jël dina nañ ay mail envoyé leen envoyé leen ko mais ba léegi répondre yi étudiants yi sonn nañ trop te ñu ngi rappelé ne même cause yi taxoon ñu rey Fallou seen mooy bañ a fay bourse cause yooyu ba léegi moo fi nekk ba léegi amul dara lu ñu changé ba léegi étudiants yi ñu sonn ba léegi étudiants yi ñu ngi te loolu du yoon du dëgg du yoon parce que étudiants yi li ñu réclamé seen droit la bourse seen droit la donc dañ leen ko fay si loolu ñu ngi rappelé aussi seen anniversaire Fallou seen mi ngi waaj a ñëw c'est dans quatre jours que muy loo xam ne daf ñu metti trop bu ñu toogee ba léegi deux ans ñaari ba léegi amul procès ba léegi justice defaguñ ko ñuy rappale autorités yi commencé ko ci njiitu réew mi monsieur le président de la république son excellence Macky Sall que moom moo ñu digoon ne dina def le tout ba justice am ba ki rey Fallou seen ñu teg ko loxo boobu ba léegi ñuy toog di xaar def nañ démarche yëpp nag mais c'est comme si que dañ bëgg dëbb dëbbal affaire bi def la tout bañ même cas yi fi amoon mu répété waat c'est-à-dire que rey doomu jàmm ba justice du am donc muy loo xam ne duñ ko mës a nangu duñ ko mës a nangu il faut que justice am il faut que ki rey Fallou seen ñu teg ko loxo condamné ko comme loi bi ñu ko santaane alliance nationale des communauté pour la santé ñu gën ko xam ci ANCS mooy taxaw ci wetu ministère de la santé ngir lii di coronavirus bañ a law ci biir réew mi alliance nationale des communautés pour la santé ñu gën ko xam ci ANCS di ñaax mboole sem ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ñu sàlloog dogal yi nga xam ne waa kër docteur jox nañu leen ko ak ministère de la santé mu di ngeen di raxas seeni loxo ba mu set ak ndox ak saabu ak jëfandikoo gel hydroalcoolique bu ngeen di sëqat ngeen jël mouchoir te bu ngeen ci noppee ngeen sànni ko ci pollu mbalit wala ngeen lem seen conc loxo ngir sëqat ci biir bu leen joxe loxo te it dee leen moytu lii di dajaloo ay mbooloo bu ngeen yëgee lu ngeen miinul seen yaram lu mel ni coono ci yi sëqat ak yaram bu tàng ngeen woote ci 800 00 50 50 te du ngeen ci fay dara. l'expertise communautaire au service de la santé. ANCS, l'expertise communautaire au service de la santé. Alliance nationale des communauté pour la santé ñu gën ko xam ci ANCS moo leen di may wax sa xalaat. wax sa xalaat ñu daal di koy door ak euh, lu aju ci wàllu coronavirus bi ak euh, li ci xew ñi ko daal di nag tàmbalee euh, wàllante gi lim gu bari bi ñuy nemmee ko ba tey ak dogal yooyu coppite yi ci jiitu réew mi daal di nag indi ko ci nekk ak jàngat ba nga ca def dooroon nañ ko ci juróomi waxtu ñu daal di koy woyal jël ko jiitu ci réew mi ligne bi biir réew mi wala bitim réew alo allo salaamaaleykum allo. waaleykum salaam wa waa ñu ngi woon parce que. waaw ñu ngi lay. ah d' ah, mhm. ma allo. waaw euh, kon ñu xaar mu dellu si allo salaamaaleykum 88 628 98 98 biir réew mi bitim réew 33 825 18 30 allo. Alaaji Adama. waaw. ñu dem Ndiakhate la Caajaay boo lay ñu ngi lay nuyu ak waa Sadio jëpp ñu siyaar di siyaare euh, Pape Laye moomu. Mhm. di siyaar waa rajo bi yëpp. ah xanaa di dénk askan li ma leen daan dénk rek nañu bàyyi yëf na ci wax nañu bàyyi yëf nañ ci jëf ndax jël ci kenn nguur kenn du xeex ak moom wala ngay bëgg a xeex ak moom. Euh, la ma leen waxoon daaw ak daaw jéeg rek waa Badar fu ne la ñuy fu ne la ñuy duggee fu ne la ñuy waxee. Euh, voilà la preuve di di di di di nuyu nag Mamadou Médor ak Mbaye Laay fële ci Cambérène. ah euh, di félicité bu baax nag président de la république borom yërmande la borom xam-xam la man naa yorum réew. Euh, Amérique ak France yëpp boo ko boole woon ak Sénégal jox ko président Macky dina ko yor yor mu sell ndax am na xam-xam am na fit maa ngi dégg nag journaliste yi yëpp maa ngi koo ci ne dañoo de euh, bi la pression bi lan lan lan lan mooy pression lan la ñuy pressionné président Macky ci lan. pression bi pression bi mooy pression. président Macky Sall teg ñu loxo bàyyi ñu dee mbas mii ñu naan président Macky Sall eh, dañ ko pressionné dañ ko fa imaamu jàkk yeeg imaamu jumaa yi ñoo dajaloo woon ñoom ñëpp ne président dañoo bëgg a jàkk yi ak jumaa yi ndax mbas mii ñu mën ko wàññi ci réew mi ñu daal di xëy ñoom ñëpp di bind seen journal yi naan dañoo teg président Macky Sall pression dañ koo teg pression pression boo xam ne bii da ngaa ci buntu kàmb gi ñu bàyyi ñu daanu ci biir kàmb gi mooy loolu loolu mooy pression bi la ca doole ko mooy dégg naa président ne euh, nañ ubbi marché luuma yi waaye nag ci département bu nekk département Mbour bii de caajaay marché yi mu am maa ngi interpellé ministre des transports en commun mooy maître Oumar Youm Mbaafay la ñu am Sandiara la ñu am euh, Njeeñeen la ñu am Daafigine la ñu am kon yaakaar naa ne bu fekkee ne transport en commun bi dañ leen a dig joxuñu leen li ñu leen dig joxuñu ko kon nañu bàyyi oto yi ñu yóbbu nag euh, baana baana yi ak ba ak ci biir marché yi parce que nag saret yi ak saretu mbaam yi duñ yóbbu client yi ci marché yi ginnaaw bu loolu passé xalifa na yàlla na fi yàgg tànn dégg wér ah, euh, kon Amine ñu daal di xaar keneen jël ko euh, Alassane 88 628 98 98 biir réew mi 33 841 22 33 allo. waaw salaamaaleykum. waaw waaleykum salaam waaw. sëñ Adama na nga waaw maa ngi fi. waaye yaa ngi ci jàmm ba. waaw ñu ngi ci jàmm waaw. waaw Modou Asta Lo Italie. ñu ngi lay nuyu Asta ak waa Italie. waaw maa ngi leen nuyu di nuyu groupe Wax sa Xalaat yëpp. Mhm. di wax ne doon naa wax sax duutuma dugg wax sa xalaat waaye nag danaa continuer ci xeet bi di continuer di wax ci sama réew. Mhm. ndax ñun li tax ñu dugg rek mooy dañoo nekk ci di gis réew moo xam ne xëy na. moo gën sunum réew wala na muy doxee moo gën sunum réew ci lu jëm ci wàllu avancement ñu di ko dund lu mat fanweeri at moo tax toujours ñu dugg di wax kon nag xëy na yaakaar nañ ne kon suñu njiit ñi ñuy dégg ñu kontaan ci loolu di wax ne ñuy wax ne liñ def baaxul xëy na ñooñu dañoo am lu ñu dundee waaye ñu amul lu ñu dunde ku nara ku kuit nara rey ci euh, rey ci sa kër nga jëm génn boo mënee mucc ci corona mucc ci corona ba am lu andi sa kër loolu laa d'accord waaye ñuy wax naan affaire bi ci la d'accord Sénégal yi nañ jël seen responsabilité léegi waaw ku nekk yaa bëgg a dund xam nga ne dund xam nga da ngay moytoo ko yor oto di ko dawal xam nga da ngay moytoo feebar beet noonu ngay mel ci moom di ko di moytu fexe bañ laa dal nga jël say matukaay may ñaan même ñiy defar masque yi masque yi même niñ koy defaree baaxul parce que masque yi dañ koy defar mu tuuti maanaam masque yi dafa war a am benn col ci kanam nga xam ne booy wax masque bi du du du denc mais bari na ci yoo xam ne bu ñuy wax rek nga gis masque bi daal di daa daal di wàcc que dañoo lay ci a bi dañ ko defar defar bu baax boo ko defee Sénégal jël seen responsabilité waaw ñun ñu doon wax nag naan dañoo am budul Macky Sall ay noonu ñun duñ ay noonu Macky Sall ñuy noonu Macky Sall mooy dugg ci rajo bi. déedéet déedéet waaw eh, déet noonu amu fi ku ci ne na joxe xalaatam bu ñu tontontee si. waaw mais toujours dafa am ñuy wax loolu rek euh, euh, Assane dañoo bëgg rek wax fii kon nañu ko continuer noonu. waaw nañ ko continuer noonu. waaw loolu laa laa bëgg a na ñoo xam ne ñu ngi toog Sénégal. Mhm. ñun ñu wax fii ay wax te ñoom nekkuñu Sénégal nekkuñu ci réew mi ñuy réer suñuy loolu ñu ngi koy dund fii loolu samedi rek am na wax naa fii ne euh, Carrefour day ubbi 24 sur 24 te bu ma neexoon léegi jën jëm Carrefour jënd am na ko toog biir Sénégal lay def nag bokk na ci tax ma doon wax naan Sénégal corona bi ñu ndax yu bon yi ñuy wax ak di weddi loo xam ne xamu ko kii magum jëm moo xam ne yaakaar naa jullit nga woor nga ba ngoon nga wax loolu. Ah. adama mbir mi ñaaw na. jërëjëf ak ah, ah, ñu jaajëfal ko ci kàddu yi ñu bañ rek euh, joxaat bi kenn baaram ku ci ne na wax rek ci ponk bi joxe ci xalaatam. ni mu gën a jàll ci keneen waaw waaleykum salaam sëñ bi. maam Adama. waaw. Ibrahima Ndiaye Pikine Ngawaraay moo lay nuyu. ñu ngi lay nuyu sëñ bi Ndiaye. ñu ngi santaat suñu borom bi tabaraka wa taala di julli ci Seydina Mouhamed alayhi salaatu wa salaam. di siyaar suñu Abdou Karim Mbacké ak Cheikh Mouhamed Rafaal Mbacké di ñaan jàmm tam di ko ñaan Sénégal yëpp. maama dama. waaw. di ñaan yàlla li sam si kii xam nga tax war lool. mooy. dañoo yàgg ñaan ne nañ may yiw bi jàkkee ndax jullit ñaan mooy ngànnaayam. ñi ngi rafetlu njiitu réew mi dégg gi nga xam dégg na ko askan ba ngu bi jàkkee yi. kon nag yàlla suñu borom bi. la sëriñ Cheikh Tidiane si waxoon rek laay wax kon yàlla suñu borom bi ñu ne la sët na ca miir ba ndax yow yaa doo tas yaakaar ku ma yaakaar. kon nag gannaaw ubbi woon jàkkee te dañ ne ñaan lañ yaakaar yàlla yaay na mu ruus. ruusal nu ruusal laay ba teg dawat yi ci at bi promoteur Sénégal kii soppi na ko ay xéwal saawaan baawaan. di ñaan ne aussi euh, monde rural bi nañ leen dimbale ndax comme que dañoo tëj lépp ko rek yor seen i béy seen i xar seen i seeni seen i di ci dund. ak toppatoo jiw di seko baa ngi ubbi te amatuñ fuñ jaar ba génn. loolu dafa xaw a metti may ñeen tam ñu tumbalal yoola mën leen bir bañ mën a koo seen bopp jël seen seko xooli seen jiw ndax nawet baa ngi dëgmal si te ñu maa ngi ñaan ñu jàngal xaan ñu ko jàng rawatina daal ko kii jërë ngeen jëf ok euh, ñu daal di xaarati keneen jël ko ci ligne bi ba tey ñooy ci jotaay wax sa xalaat bi biir réew mi wala bitim réew allo. salaamaaleykum. waaw waaleykum salaam sëñ bi. Oustaz Adama Ndione. waaw. bàcc ci Kër Madaro. bàcc ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu si mbay laay sa di jaar nag njabootu Seydil Hadji Malick si gépp leen ñaanal jàmm. Euh, allo. waaw yow laay déglu baaj. Adama. waaw. gis nga sa émission bii. Mhm. mooy émission bi gën a démocrate ci àdduna xam nga lu tax. waaw lu tax. wax sa xalaat la tudd. góor gi Saliou Kandji mi doon def li wax di tekki. Mhm. moom moo leen jox baat boobu. Mhm. ñu tudd leen ko wax sa xalaat. boobu ay laaj yu diis amoon ak ay yeneen wax. mais bu waxuñu wax sa xam-xam waxuñu dara. waaye nag ci biir xalaat yi. Mhm. léeg-léeg confrontation bu dañaas. Mhm. parce que ñun ñëpp a yem dañuy politique rek. Mhm. ci ñaar dafa am ku faral Macky Sall ak contre Macky Sall. léegi nag yow man Adama. Euh, dafa am rek benn point boo xam dama bëggoon président. gestuwaat. ginnaaw sax ba ma ko gërëmee sant ko. ci taxawaayam ci réew yi parce que mi ngi déglu aw askanam. et puis tamit nag président da dañ dañ koo fal par mu yor ay renseignements généraux. lu kees waa rajo yi rek ñooy nekk fi di di di ay information lay am yu leer nañ yu ko wan nii nii la wala nii du nii bu ko defee mu seetaat jéem a seet solution waaye nag ñun tamit mettre nañ ñun ñëpp devant nos responsabilités nag ku ne na nga jël seen jumaa nañ seet nañ ko organiser waa marché bi nañ leen seen marché nañ ko organiser man nag li ma gën a intéressé mooy waa àll ba la daan jooy oto yaa ngi gaare lu muy nag mu ubbi na dootuma ko tudd pousse pousse yaa ngi gaare saret yaa ngi gaare ñooñu nag seen gaare bi daa yàgg ndimbal li ñu leen waroon daara bi yàgg na léegi nag comme président comme demee noonu ba demee noonu ñaar rek moo mën a am lañ leen dimbali wala ñu bàyyi la rek hmm. hmm. hmm. moo man li ci des yëpp ay détails la pour man quoi amul ma benn njariñ ma tax dama ci sonn maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah ok euh, euh, Adama allo waaw waaw man la aana di wote personne ma ne. bi. Mhm. dañ koy rafetlu. li mhm. président wax. Mhm. mooy la mu daan wax rek. jàmm ci réew mi naataange ci réew mi. jub ci réew mi. liggéey ak développement ci réew mi. loolay soññi ñëpp góorgóorlu. sàmmanteeg lay tax feebar bi jóge ci réew mi. na ko ñëpp déglu ànd ak yar ak teggin. jëfe ndigal yi gën a takku gën a fagaw. taxal sama masque pour protéger sa bopp protéger ki ngay waxal. na ñëpp takk seeni masque wér-gu-yaram amul njëg nañu continuer di raxas suñuy loxo saa su ne ak saabu wàññi dajaloo bi set rek moo ñu mën a muccal pour nga aar sa bopp aar ñeneen ñi nañu fagaru ci lépp respecté mesure d'hygiène yi ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr ak équipe am jël di gërëm personnel de santé yépp ak waa Sud FM rajo bi ñëpp di déglu kontaan nañu ci yéen a ñuy gunge saa su ne yàlla na fi yàlla faxal jàmm ak naataange jàngoro bi yàlla teggi leen ko di ñaan ko ñaan ko moom it mu muccal mu arrêteel ñu jàngoro bi fii ak si àddina bi yëpp hmm. merci Adama ñu ngi gërëm chef d'état ci li mu def yëpp ànd nañ ci gërëm nañ ko sant nañ ko merci mu nga ko euh, loolu di jàngatam ñu xaarati keneen ñu jël ko ci ligne bi beneen auditeur allo asalaamaaleykum waaw waaleykum salaam Oustaz Adama waaw ndongo la bàyyi Cheikh Diop yàbbatil mooy nuyu di siyaare waaw ñu ngi lay nuyu ak waa Ndiamb di nuyu sa technicien di nuyu mboolem groupe Wax ma def benn parenthèse rek ci Italie. waaw kii maanaam man kooku di wax dund naa Italie fanweeri at ak ñett. Hmm. def naa Italie fanweeri at ak ñett Carrefour yi mu wax vingt quatre heures ci vingt quatre heures benn supermercato su ko am ci Italie amul. ne seen prix ne Cityper ne képp ci yam ne Spir ne Spir amul fenn foo xam ne nii am na ku ñu jox vingt quatre heures ci vingt quatre heures amul. waaw waaw sëñ bi may déglu sëñ bi. waaw ñun waaw ñun dañoo nekkul Italie fii la ñu nekk. moo tax seen xam nga xam ko. waaw dama ko coupé dama ko ne na bàyyi. non non coupé ko déglu Alsaan ñu jël keneen waaw 88 628 98 98 du te santé nañu déglu woon te ko ci ne waaleykum salaam wa. waaw sëñ bi. ñu ngi lay nuyu waaw góor ñu ngi lay nuyu. ñaan si ñoom ndax <laughs> di siyaare Baye eh, Cheikh Diop Daaru Xadim di ñaan eh, di ñaan jàmm rek xam nga Oustaz Adama eh, yëf yi moom fi mu ne nii président moom la ñu réew mi te itam wax dëgg yàlla ñu fi jaar yëpp kenn gën ko jee rafetal ma res te it liggéey na fi liggéey bu am solo te it askan wi jaral na ko lu ne te it naka jëkk nii la mos a mooy du xool du jëmale réew mi kanam ak njariñu réew mi ak waa réew mi waaw bëgg nag du bañ waaw nañ ko wax te kenn ku ci nekk ñi contrôle ñoo contre ah ñi àndoon ak moom a ànd moom rek waaw réew mi moom bu la jaralee da wax rek te yàlla tax ak ak ak luy jëmale réew feebar bi nag dégg naa fi ñu am na waaye feebar bi daa wuteeg yooyu waaw bu daj kàpp àdduna ak suñu dal na leen bees boobu feebar moom mës ta am ko xam na ko wax waaw loolu mooy gravité bi te kenn ku ci ne ku am mag war koo bëgg a sàmm war fee war a nangu euh, gudd fanam ndax mag ñi ñoo ñu produire ñun ndaw ñi te ñu war a produire ay ndaw ëllëg kon yooyu yëpp dañ ko war a bàyyi xel président lépp lu muy xeex rek da koy xeex ngir euh, réew mi am jàmm réew mi jëm ca kanam waaw kon mesures yi muy jëlee yëpp foofu la ko teg may ñaan nag responsable la ci imaam yi nga xamante ni ñoo jiite jumaa yi responsable lañ ci nañu euh, taxaw te sàmm kaaraange ñu ñu jiite waaw ni ko ni ko Touba daan defe ndax dama daan dégg ñu naan bàyyi nañ Touba ñu julli wala Touba nga julli wala ñu way def nangam Touba nag ba di kilifa lañ am te kilifa gi dañ dafa dañ ko déggal waaw ba ñuy julli ñu ngi doon tegu ci norme yoo xamante ni bii euh, xel nangu na ko kon nañ ñëpp kenn ku ci ne jël say responsabilité ci loolu ndax sëñ bi bañ bañ ba ba mbas mi tàmbalee nga yëkkati ñatt téeméeri million euh, teg ko ci taabal ji man nag gisumooy loolu ci yeneen yi Euh, am na fu ñu mën a yem waaye am na foo xam ne duñ ko mën a yem. Hmm. ok euh, ñu jaajëfal ko moom it ñu xaar keneen jël ko Alassane ci ligne bi allo. asalaamaaleykum waaleykum salaam sëñ bi. Adama ah, ah. Mbengue ñu ngi lay nuyu. waaw ñun dañuy wax rek ci euh, li xew-xew bi. Hmm. alhamdulilah rabil alamin président de la république. defe naa ne képp kuy am information ci Sénégal moo la ko ëppale hmm. eh, amul kenn koo xam ne nag eh, da ngay nekk sa kër sa kër sax boo ko yoree foog nga waxtaan ak nit ñi foog nga déglu nit ñi te defe naa loolu la def déglu nañ ñëpp wuyu si na ñi nga xam ne ñoo doon wax nañu ubbi jàkka yi ak jumaa yi yàlla nañ ci yàlla dimbalee ba ñaan yooyu ñuy def ci jàkk yeeg jumaa yi yàlla nangu ko te mbas mi jóge fi dem may wax rek ne amul kenn ci àdduna koo xam ne di nga def lu ñëpp ànd ndax yàlla moonu nu bind te ñëpp bokkuñu gëm ko wala boo ba ko ñëpp bokkee gëm am nañu ko gëm te wooluwuñu ko loolu nag su amee président de la république ñëpp mënuñoo ànd ak moom ci ay xalaat wax xalaat bii nga xam ne moom la ñuy def am na ñoo xam ne dañuy wuute ay xalaat am na ñoo xam ne dañoo ànd ay xalaat comme moom la yàlla teg ci boppu réew mi te xam na ko mu ngi doxal yërmande yàlla na ko ci yàlla jàppale waaye bëgguma kenn di ko wutal ay noon Sëriñ Tuubaa de ba mu demee géej ba ñëw mbooleem ña ko yóbbu ak ña ko tooñoon ñëpp def leen a jéggal jël kilifa nag def bi war di jégle ci jëlale léegi foo ma mayee ma wax ci ceeb bi li ko tàmbalee Cees ba da ngay dem Séedugu bépp doomu baykat bu nekk yeyoo naa am ci ceeb bi am na ay renseignement yu wér kenn ëpp ko ay renseignement dama ne ceeb bi dafa fekk ñuy dund awaa ceeb bii ñëw ñëwagul de noo ngi dund kenn deewagu fi ndax kii ba ceeb bi ñëwee dañuy continuer dund ba ceeb bi jeexee dañuy continuer dund ña am ak ña amul di weesalal tool ñu ne yow amoon nga man aw ma maa ngi dund ma di ko ñaan ngir yàlla ak yonent bi na pexe ñëpp ma jërëjëf ñu xaar keneen ci ligne bi ñu jël ko allo. Oustaz Adama Ndione maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw maa ngi lay fay ajaratu. di nuyu équipe technique bépp di baal ñëpp ak di leen baal ak di nuyu sama ñetti oustaz yooyu. lii nag comme ni ko ñëpp defee rek. Mm-hmm. ñi ànd ak moom ak ñi ànd ak moom tey ñëpp àndandoo nañ félicité ko. Mm-hmm. ci lii nga xam ne nii dégg na ko nit ñi di ko kaas ci rajo bi mu mu wëlbatiku ànd ak population Sénégal mm-hmm. ànd ci li lu bëgg mu defal leen ko. xëy na sax moom neexu ko waaye xam na ne boo jiitee da ngay tëdd njaxaanaay. tëdd na njaxaanaay tey ubbi jàkka yi ubbi marché yi ubbi yëpp. mais lenn rek laa ko laa ko laa ko condamné ma. Mm, ña nga xam ne ba mu ba mu ba mu ba mu joxee ordre. Mm. ñoom ñoo njëkk taxaw. Mm. li nga xam ne moom lay tere ñoom ñoo ñoo a taxaw. def ko benn sikki sàkka muy secteur transport. moom Macky Sall ne salaamaaleykum lañu jël seen i oto gaare. ñu nekk Casamance lonk fa toog fa ñu nekk Kédougou Bakel ak Karang ak fu ne ak Fuuta lonk fa chauffeur sànga toog. ñu conférence de presse waxuñu néewuñu xiiw ñu ña ngay xiif ña ngay mar ña ngay rafle ña ngay ñàkk lu ne lu ñu yóbbu seen i kër kon dama ko doon dama koy ñaan ne ko na woo Omar Youm mi ministre transport loolu laa koy sant ñoom ñaar ñëpp samay xarit la secteur transport bee ngi dund loo xam ne aadama nee naa la ñoo ci gën a metti sa chauffeur bu daan xëy toog ñaari weer xëyoo sa oto départ doo sa njaboot ñaari dërëm di xool say doom nee naa la am na benn waay bu sant ñang damaa woo ba wuyu ko mu ne ma lii muy dund. Hmm. mbas mi daloon na wala ku ma ma faatu moo ma ko gënaloon. Hmm. kon xam nga kooku aadamaa ngay dund lu mett hmm. maa ngi koy ñaan secteur transport bii mu jëkk ci moom la waroon nañ jëkke ndax ñoom wax dëgg yàlla am gàcce ngalaama. dawuñu daayuñu. loom président bëgg ànd nañ ci moom kon nag ñoom li nu bëgg na ci ànd ak moom moom Omar Youm defal leen ko bàyyi leen ñu liggéey ñun leen di organiser ñu organiser ko mais borom kër mënut a toog rek liggéeyul ñaari weeri yàlla gaari sooto aadama hmm. tey fay assurance di fay banque ya di yor sa njaboot loolu daal laa amoon lu may ñaan président Macky Sall ci secteur transport hmm. ay gor lan ay jullit lan jërëjëf Adama bu suba ak jàmm. merci jaajëfal ko moom mooy auditrice bu mujj bi waxtu yi def nañu ndax Sud Éducation buñ ca noppee 22h ak Marie Rosalie Ndiaye jaajëfal ñu wootee jéggaluñ ci ñu nekkoon ci ligne bi jaajëfal bu baax a baax itam Alassane Wade moo fare woon ci sottandikukaay bi ma ci ubbiti ak jàmm biir gudd fan ak wér-wér la am ak mën a fekk ak tal yàlla nañ ko yàlla defal jërë ngeen jëf.